jàmm fi da leen toxnatu bpactu point com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fu seeni ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk ba tax na nag tey jii liñ leen indil nekkul leen lu dul diggante yaay ak doom faatumata Fouta Tampi ak doomu bi jigéen bi di wuyoo ci turu Thiaba daanaka daal ñoom ñaar seen giita ngaas mi ngi bëgg a yàgg lool giita ngaas boo xamante ni nag askan bi ñëpp teg nañ ci seen bët askan bi ñëpp xam nañu lu xew seen diggante d'après caba mi nga xamante ni moom moo njëkk fës ci Walf Walf TV di yëgle ni yaayam ji nii di Fatoumata Fouta Tampi daf ko daal di abandonné euh, totalement lijjantiwu ko faalewu ko euh, toppatoowu ko teg ci tamit euh, nag abandon boo xamante ni ñëpp wax nañu mu lank bañ li ko waral mooy dafa juumoon rek ba daal di wan loor ci mbedd mi Fatoumata Fouta Tampi foofu la ko génnee kër gi daanaka sax début bi daf ko bàyyi woon muy fanaan ci suufu escalier yi finalement joxatu ko mu lekk joxatu ko mun naan ba mbokk yi ñoom ñoo ci daal di dugal seen loxo jàppale ko ba keroog ko muy accouché Fatoumata Fouta Tampi am na yeneen doom waaye yamalewu leen benn yoon moom nag gëm na ne way juróom bu góor tey jii bu yoroon moom caba du sonn waaye Fouta Tampi li muy wane ci télé bi maanaam di dem ci soirée yi di baatare ak di wax wax ju baax ak wax ju rafet mënoon na koo tàmbalee ci ay njabootam ba noppi caba nag bés boobee la daal di fësal boppam ci réseaux sociaux yi ndax kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci woy juróom bu jigéen boobee ñu ci bari nag daloon nañu. ci kaw Fatoumata Fouta Tampi ndax euh, fekke fekkoon na mu nekk ci contexte ba nga xamante ni euh, Fouta Tampi dafa wonoon coow ci euh, réew mi ndax ba mu jegee ci opposition bi jékki-jékki rek daal di dal ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa APR Fouta Tampi nag moom début bi dañuy woon du ci wax waaye mbir mi ba mu demee ba commencé dégénérer ci la commencé def ay sorte ngir démentir doomam joojee nee na nag doom ju fi bon rek sa wayjur daal di lay woon ginnaaw doom boo déggaloo sa wayjur wayjur daal di lay bàyyi ndax tey ku sañoon boo yoree sa doom ci yoonu diine ak lislaam ñaan nga yàlla tey jii bu màggee a doon nit ku baax koo xamante ni daf laa déggal waaye doom boo xamante ni déggalu la fu ko neex dem fu ko neex nekk fu ko neex fanaan ñu ko neex nekkal boobee doom nag nekkul doom boo xamante ni dañ koy daal di toppatoo daanaka ca ba bës bi mu waxee nag ba journaliste ba yëkkati kàddoom daan ni na ko Gabriel Kane daal di dimbali moom a ca ba demaan na ca diwaanu Dakar expliqué gisanteem ak euh, kii nii euh, di rek Gabriel Kane na mu daal di mujjee nee na chantage yu métti la mujjee moom du nangu ya chantage Gabriel daa dina koy euh, yóbbu kër waajuram bu jigéen mu nekk foofee am chambre am salle de bain léppam lépp nekk ci jàmmam di lekk di naan waaye bés dafa jot rek Gabrielle Kane daal di koy woo téléphone ni ko maa ngi lay la liggéey rek ci euh, entreprise bu Nabou Dash ngir ko nga xëy gontu dafa am dara loo jàppale euh, sa doom ji waaye benn condition rek laa ko teg condition boobee nag du lenn lu dul a nga toogaat ci télévision bi nga toogoo na daan ni li ma waxoon ci sama waajur bu jigéen yëpp dara du ci dëgg influencé woon dañ ma fayoon ngir ma daal di eh, yàq sama deru waajur bu eh, ndax dafa bari ay noon yu nekk Sénégal yoo xamante ni eh, Fatoumata Fouta Tampi rek lañu lañu bañ gone ga nag nee na dafa daal di bras fer ak Gabriel Kane nee na ko ba may dem wal fu di wax kenn fayuma donc duma demaat foofe di wax nag su dul noonu daray àdduna jaraluma ko je préfère sax ma dal di génn sa kër opportunité bépp boo mu bëggoon a may ma wan ko ginnaaw mais duma nangu yow Gabriel Kane nga may fenloo ci télévision bi comme comme si que man lépp lu ma waxoon du dëgg alors que lépp lu ma dala raconté ba suñu joon yàlla tey jii dama ko dund ak Fatoumata Fouta Tampi la ko gone gi jee nag mooy que ni euh, bis bu dëddoo àdduna bu fa woy juróom bu jigéen tekk tànkam ndax suur na ko àdduna ak àllaaxira ñu gis Fatoumata Fouta Tampi nag ci beneen facette bu ñu ko mësul gis mu def direct di jooy rangoonam di dal ci dëndam muy yuuxu ba sénégalais yi ñu ci bari daal di koy uh, yërëm muy wax uh, fi mu jaar ak uh, kii nii di doomam boobee di caba jafe-jafe yi nga xamante ni jotoon na koo dund ak moom ak lépp loo xamante ni daal defal na ko muy waajur warloo ko ak doomam nee na def na ko waaye moom moo jóg rek ngir daal di të moom moo jóg rek ngir jaar ci yoon bu bon ndaxte nag tey ji Euh, kër goo dugg rek am na maram biraan moom maram biraanu àddunaam euh, moom moo di euh, caba waaye nag lam ca daal di teg rek moom la sénégalais di naan rek jamono ji ñaanal na ko ñaan bu bon won ko ni ko rek yow caba yal na boo tekki ci àdduna yal na la say morom raw tànk yaa ngi dëkk di ma toroxal ak di ma sosal di ma waxal naka sudul noonee jamono ji nag difficile na lool ñu xam kan mooy wax dëgg ci diggante Fatoumata Fouta tàmpi ak kii nii di cabaa en tout cas daal li ñu mën a tëjee mooy que ni jur nu mu mënti mel jur rek lay doon waxtaanee ko biir néeg moom moo gën rekk ñu daal di koy teg ci penc mi ku ca war a wax wax ci ku ca wata wax wax ci donc mbokk yi lañ leen indiloon ci seen a xibaaru analyse jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.